Thank you. Dieynaba Bodian salut Astou Sall ça va Mamadou Badiane ça va Badiane ok jaajëf gaañ jërëjëf gaañ bi Momar Bienvenue Ndeye Bakhoum ñu ngi leen di ziar. Rajiv Gandhi. Portal General. Portal General. Wow, perfect. Wow. وعصابة الخيول. Mhm. waaw waaw lancé naa ko ni mais lancé naa ko maa ngi xar gars yi dugg quoi maa ngi lay jël hors ligne la hors antenne waaye. waaw après léegi. fa la jëm bi léegi nag euh, toi yow qu'est-ce que tu mun nañ koo toj nii wala ñu bàyyi noonu mu jàll. mun nañ ko toj ci kaw walla ñu bàyyi ko mu jàll. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, waaw mais xam nga xam nga xam nga yow li ngay wax ni man musoon naa ko wax ci sama live bi ci euh, lu demee ci Gora bi Mansur Fay Mansur nan kou ak ki laj bi Sama laj Yari yon A Waw ak ambisyon Yari gay yep Yag nan kote nosi Yag nan kote nosi Hmm ah en tout cas dal yalla baxna na nañu dem way mhm mhm ya yàlla baax na mais mais ñoom rek ñoo téye Sénégal la famille Faye Sall ñoom rek kooku ñun loolu yëpp yàgg nañ ko de man loolu moom <laughs> bettu ma quoi yàgg naa ko kii sax man ñooñu dama leen yàgg joxoñ trois de bind naa ko samay trois trois live bind naa ko titre tey sax bind naa ko ci titre live on dirait yow da nga ko xam. jërëjëf ah wa legui nañu def rek yalla bax. Inshallah. ok Wow. waaye d'accord ok ma ngi dawal waaw ok ma ngi dawal inshallah. waaye xoolal xoolal titre bi xoolal titre bi bii mooy sama quatrième titre bii mooy sama quatrième titre bii mooy sama quatrième titre ba bien avant ngay ñëw bii mooy sama quatrième titre bien bii mooy quatrième titre bi waaw mais amoo problème moom kay man yàgg naa ko wax l'histoire nous donne toujours raison rek waaw te yow moom yow yow moom ponkal nga moom non non non yow tamit père naa ko ok gars yi dugg leen patriote yi dugg leen dugg leen gaañ ñëw leen ñëw leen ñi ok jërëjëf maa ngi ci direct bi jërëjëf ok salu salu gaañ nañu dem rek incha allah léppay baax bu soobee la koy baax gaañ patriote dugg leen dugg leen partagé la ñu dem très rapidement ñu dóor ki mu daanu mu féete boor ñu doxi leneen boor jërëjëf. jërëjëf jërëjëf partagé Ami Diallo ñu ngi lay ziar bienvenue vieux Kébé Bibulaye Touré Sara Sadio Momar Tall Ndey Bakhoum Ndey Dieng Djeneba Bodian Astou Sal, yéen ñëpp bienvenue voilà donc ñu démarrer mu ngi gars yi ils vont nous prendre un coup de chemin voilà donc salam alaykoum, donc euh, waa panel bi Dabakh Malick TV di leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen di leen jox seen wàccuwaay di la famille de Mali. Euh, di nuyu Sénégalais yëpp ñi nekk ci diaspora ñi euh, donc euh, ok oui Ami Diallo oui c'est vrai donc di ñaanal Sénégalais d'une jàmm di ñaanal donc suñu waajur yeeg jàmm kilifa diine kilifa aada yeeg di ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm rawatina proche président Ousmane Sonko porteur du projet di ko ñaanal jàmm di ñaanal jàmm tamit ñi nga xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi taxaw ci combat bi di xeex taxaw di xeex pour dëgg am Sénégal ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm may leen wér ak wér la ngeen tal ko may ñu doole ak kattan ak xel ak xam-xam ak pexe bi ñu taxaw di xeex seytaane ak fen pour samp dëgg di ñaanal tamit malade yi nekk ci kaw biiru hôpital yi ak ñi nekk ci kër yi tëdd.

di jënd ci bopp réew foo jaar amul pexe fii dem rek moo fi am waaw te nag euh, injustice baaxul ci réew euh, di ñaanal tamit ñi nga xam ne wala ndeysaan barki dëmb dëmb ak tey ñu ngi woon ci ñun ñu bàyyeeku yàlla dogal ñu wuy ju borom bi ñu ngi leen di ñaanal fa ñu jëm gën a leen fuuf fa ñu bàyyeekoo yal na leen yàlla teeru ak yërmandeem euh, lépp lu ñu ñaan ci laylatul xadri bi ak ci weer bu sell bi yàlla nañ ko yàlla nangul dafa ñu ko y nangul ñu suñu koor yàlla tapé xol yi comme de baax qui ni mu koy waxee euh, di leen sant leen di ñëw rek direct euh, ci suñu jigéen bi Mandela euh, gis naa ko ñu posté ko ci Facebook bi ci réseaux sociaux parce que entendre nañ ko ñu bàyyi mu ñibbi këram def naa jot fi def benn émission tey woo nañ ko yóbbu ko li du dara rek parce que gis nañu ni fajri dafa taxaw taxaway bo ne euh, ci la taxaw te di nek ci la voix des sans voix euh, Batu askan bi te taxaw di bu mucc ay te mu am ligne de conduite gannaaw bi nga ne euh, donc. Euh, jéem nous ko suspendre pour Dag euh, donc euh, suspendre dara pour parce que ci jamonoy PDS ils Senghor kon gangster bi attaqué attaqué warfagire attaqué Nous avons toujours le libéralisme rek def libéralisme Pour doxali pour une mentalité libéralisme voilà ci libéralisme la ñuy gis ñuy agressé ay ay ay organes de presse di leen toj di leen du toj di attaqué di toj toujours libéralisme rek mais jamonoy parti socialiste doo ko gis mukk voilà donc euh, di leen wax ne di leen massaw yéen waa Walfadjri ne leen taxaw leen fu dëgg et pourtant et pourtant euh, ñoom ils étaient avertis ñoom ñoom ils étaient man personnellement ak weer koor jot naa leen wax naa leen ne leen ay weer ci gannaaw ne def attention gars yi ngi seen kaw même pap Ndiaye tey mi tey nii waaw jokkoo wax ko ko ne def même Sané Sané Sané attention ñoom ñëpp nañu def attention c'est-à-dire journalistes yi nekk ak chroniqueur yi nekk ci ñu ngi di parce que Macky Sall objectif au projet de dafa bëgg a démanteler totalement la comme ni ñu ni bu ñu démantelee Pastef Pastef dina daanu ñom ci loolu lañ nekk ñom ci seen logique bobu lañ nekk donc te mënul nekk te xamuñu ni wal Walfadjri ak euh presque euh pour nga mun koo toj day métti quoi parce que ñom ñoy Sénégal ken mënu leen démanteler quoi donc ñom ci loolu lañ nekk Fatou ko ci Facebook maa ngi lay ziar bienvenue donc waxon na leen ko nee naa leen nañu moytu contrôle leen seen kër wa wal fajr xol leen seen kër yi. ngeen bàyyi xel seen kër ngeen bàyyi xel seen oto yi bu ñu leen mënulee jàppale fa dañ leen miine miine leen mooy soit ñu jël toog dugal ko seen kër wala dugal ko seen oto yi kole leen motif ñoom loolu lañ fi nekkee ñoom le régime la moo tax yàgg naa ko wax waaw yàgg naa ko wax euh, euh, euh, Pape Ndiaye du ma bàyyi ma fen ci weer koor laa nekk waaw tiire naa ci la solo dalam wax leen ko bu baax ñu xam ko donc

waaw ah, wérul responsabilité réew mi foo toll foo laal di alors donc mbokk yi li may tàmbalee foofu daanu ci fi nga inscription yi patriote sénégalais primo votant yéen ñëpp jóg leen ngeen takk seen tig ndig parce que inscription yi ak bracelet yi la mu la mu la effet ya mu def dafa garaaw donc nañ ci continuer ci ñaari points yi képp ku binduwul demal bindu ci képp ku nga xam ne am nga problème ci bindu bi xoolal ñi ñi ñi nga xam ne mën nañ la jàppale nga bindu ci nga dem bindu ci bu ñu bindee ci biir euh, ni euh, ne peut pas voter ou bien n'est pas dans le fichier électoral Le lieu, mën régler donc bindu tant que bindu bi date ñu wax ñu wax surtout ça, ñom dañ ko tek ci wéru koor nga départ cest à yàlla bu buy buy buy def buy buy defar da ngay buy buy defar da ngay foog day yàq déedéet ñoom dañu foog ne ñu ngi yàqal Sénégalais fekk ñoom ñu ngi arrangé Sénégalais ci weer koor bi lañ ko teg muy weeru dëgg gars yi fajar la ñuy xëddëral dem envoyé moo tax fu mu ne ñoom amuñu jàmm quoi parce que la génn ci inscription c'est extraordinaire nag booy comprendre nañ ko dañ ko continuer tey loolu mooy général bienvenu loolu mooy li nga xam ne moo gën a am solo bind ci bind ji ba pare ñu waajal suñu combat Il y gis ngeen euh, manipulation yi way ci Karim wat inscrire mais mom suis ak situation bokk situation mom ak euh, euh, Khalifa situation de te kenn gisul fu ñu defee amnistie man de bu ko nga procès bi wax donc bu ñu ñëwee photo ñu génnee ko way inscrire même bu inscrire fan la inscrire ci ban naka la inscrire est-ce que il a été amnistie moom mi nga xam ne moo bañoon amnistie est-ce que accepté na amnistie bu accepté amnistie kañ lañ ko amnistie lan mooy firi ne dañ ko amnistie ba mu dem bindu ji un deux deuxièmement ñoom ñi naan appel euh, procès bi fan lañ defaat appel procès pour révision procès bi amul bu fekkee am na ñañ ko wax sénégalais donc naka la kon donc mom léeg il est au four au frigo moom ak euh, Khalifa Sall alors donc naka la mun a dem inscrire bind en conclusion Karim Wade du ñëw bind leen ko man jox len exclusivité Karim Wade Karim Wade du ñëw Sénégal Karim Wade du ñëw man ma wax len li bok tay ngeen xam ko bind len ko Karim Wade il mettra pas les pieds au Sénégal Karim Wade du bokk pour mu leer nañ yii diversion la bu leen ci sax dugub dama leen wax de source sur Karim Wade du bokk moom Karim Wade ci boppam xam na ne du bokk te ñoom PDS ñi ngi ci ay négociation bu metti ñoom ak Macky Sall mais point bi <laughs> ñoom point bi lañ soxla point bi te point euh, euh, euh soxna bateau, bàyyiwu leen ci point bi Karim Wade du ñëw. dama leen wax takk leen ko du ñu ngi fi ngeen ñi dem ñu xol ñu ngi ci ay négociation yu tar mais li am problème Karim wat du bokk ci élection yi saway réeroo am na de barke Nabil Moustapha xol leen titre live bi réeroo am na de

sen bir mi ngi toj benn bokk yaakaar mi ngi toj danañ ko de gis ngeen ni ngeen di téye Macky Sall nu muy téye nii Pastef patriote yi di tëj nii jàpp ni moom mu ngi démanteler Pastef fekk mu ngi gën a dooleel Pastef parce que la force de Pastef là c'est tous les Sénégalais performance Pastef bi nekkul ci Sénégal mu ngi ci diaspora bi diaspora bi ñoo ko yor performance Pastef diaspora bi la ngay gis nii muy live ak yooyu këriñ këriñ bon, ñoom avez foog ne mooy ci Sénégal di def ay live ak yooyu bi diaspora bi la force bi ci diaspora bi la ñun moo tax ñoom xamuñu mun nañu téye même bu ñu téye gis nga performance passé day gën a tar dox parce que ñu koy doxal gannaaw yàlla ak ñun la ñu ngi fii ci xeex bi lan communication la rek du mën réseau yep ñu sen de communication la noyé chaîne de télévision yep la Nous gis Macky Sall mu leen contrôler ñun Macky Sall ak chaîne de télévision yoyu les leen sommes les patrons même <laughs> wa wa réew mi nous jëm nañu dugg amna guignol la koy gis ak ak chemise orange la cravate orange

waaw moom abal na ñoom Mati trois pom ak ñoom it Hélène ak ñooñu yëpp ñoom Kalifa léegi ñëpp nee na moom sëriñ la léegi <laughs> gis ngeen yi fi ñu jëm donc bataille communication bi moom gañe nañ ko kooku moom bu ca léegi li fi am mooy li ma leen wax tiit mi dama ne APR ci diggante Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo waxuma ma Faye Sall sax mais yaayu Marème Faye Sall déglu leen baax de ci diggante Macky Sall Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Idrissa Seck Marème Faye Sall ak yaayu Marème Faye Sall benn bokk yaakaar mi ngi nii coow li mi ngi nii hmm. coow li mu ngi nii partagé leen live partager. parce que lui andi coow li Moy, Macky Sall avait promis le poste de premier ministre à Idrissa Seck mu gëmloo ko Idrissa Seck Maintenant, lu mu ko saxal conseil économique social moom la saxal Idrissa Seck en attendant muy xaar poste premier ministre bi Idrissa Seck dem na ba ci biir mu am yàqin ni du musa jot poste Bob du ko am parce que xam ngeen lu tax parce que ngeen baal ma amuñu benn problème ak ñoom information lañ leen jox parce que Macky Sall na doom ko bandum boobu dafa ëlbatiku mu nekk arme de destruction massive contre Macky Sall écoutez-moi attentivement na doom ko bandum boobu bu mu daan promettre ne ko dugal ko ci politique Sénégal te musul am Sénégal de arme de destruction massive contre Macky Sall sa politique. parce que nous ñoo opposé sur le poste de premier ministre nga xam ne moom la Idrissa Seck doon wut du de mais ñi nekk ci biir nekk nous mi ñoo taxaw ne Macky Sall du fi am Idrissa du fi poste premier ministre muy benn conflit entre Macky Sall Idrissa Seck conflit baa ngi nii mais ci biir bennoo tamit mi ngi bax am na ñoo xam ne ànduñu ak Macky ñi ngi jonkoon di xaar mais li leen fa téye mooy seen privilège mais ñoo am nañu yàqin ni Macky Sall pare na déglu leen bu baax li ma leen di wax ñoom it ñi ngi jonkoon di xaar boobu bombe à retardement ci biir benn mbokk yaakaar Il dit déjà xam na ni moom fële qui waa ji lu mu ko wax ak yooyu tous commencé na décaler mais xeex bi mu ngi entre Amadou Ba ak Macky Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo parce que Abdoulaye Daouda Diallo ci présidence bi Macky Sall daf ko promettre poste de premier ministre mu que ko dem dóor Amadou Ba mu teg Abdoulaye Daouda Diallo foofu te fekk Amadou Ba moom dafa créer parti attention Amadouba il était dans la dynamique de la création de son propre parti le bëggoon créer parce que Nervi yi ngeen ils sont à la solde de Amadouba. Ba ñi ci Neville yi ngeen di gis ni ñu ci donc Amadouba Ba dafa anticiper Macky Sall dafa tellement anticiper Macky Sall teg ak loolu ci table bi Macky Sall ne ko non da ngay bàyyi bu ñu après man na bàyyi yow nga jël Macky Sall li la wax Amadou mais pour le moment premier ministre mais Amadou Ba bëtam mu ngi ko teg ci siège bi présidence de la république Macky Sall bu ma xamee nii bu bu defalee loolu Amadou Ba du fuppiyee day samp créé parti am teg rek coow dina kur dina ko affaiblir mu mu dóor ko loolu mu posone ko loolu que après 2024 moom moo tax nga dëgg ni Amadou Ba dafa daanu ci biir piège parce que Amadou Ba dem na ba mu gëm loolu fu mu toog ci plateau yi mu ngi def mu ngi candidat suñu candidat moy Macky candidat Macky Sall suñu candidat 2024 mu ba 2035 def évaluation après après c'est-à-dire mom moy lañ ko la ko promettre APR donc mu ne ko sa création parti donc Amadou Ba le candidat. la mais Amadou Ba mu gis ni même poste de premier ministre bi menace ñu koy menacer da koy perte parce que danañ ko kàjji parce que Abdoulaye dawda Diallo mi ngi taxaw mom tam ci ginnaaw tek fitna Macky Sall ci poste premier ministre bi ko Macky Sall promettre parce que mom tam dafa fipp pour na su ko su su le poste premier ministre rek dina jënd créer parti mouvement donc conflit bi mi ngi non installé mais conflit bi amul fofu amul fofu rek. Qui na ko pandu conflit bi dafa dem dugg ci léegi mu installé au cœur de la famille Faisal Madame Faisal rentre dans la danse Madame Faisal rentre dans la danse d'où ci table bi moom ak Madame Faisal avec sa maman ñu dugg ci xeex bi ñu ne Macky Sall tag ku jëlee deux mandats nga am jox nañ ne ko sama frère day nekk président yaay ji ne ko sama doom day nekk président lii la wax Macky Sall sama doom day nekk yow dem jàppale nañ yow ba nga toog yaa ngi dem ñaari mandat la jeex na sama doom mooy toog sama doom mooy toog mooy kan mooy Mansour Faye donc yaayu Mansour Faye yaay Marème Faye Sall moom mi ngi xeex dugg na ci xeex bu danse bi ak ak doom ju jigéen ji pour seen taaw pour magi pour magi Marème Faye Sall mooy candidat Marème Faye kon Marème Faye Sall Macky Sall nekkul candidat am actuellement fu mu ne jamono ñu toll nii pression bi ñu teg Macky Sall te mu nekk euh, euh, Makka ne day umra Fabi Fay bi ñoom seen candidat moo nekk euh, Mansour Faye déglu leen te nañu def léegi nag Macky Sall coow li bu mu ne kur nee na na gaay bloqué lépp ñi xaar mu ñëw pour bu ñëwee day jëm a seen naka lañuy ñuy négocier mais ci daaka la ñuy jëm xamu fa fan la ñu jëm Macky ci ay yaakaaram comme xam na ni cóol leen na fii ci kilifa diine yi fii daaka ba la bëgg a jëm de ci kilifa bi daaka bi fële. pour kooku nekk modérateur pour ne doo ko bandu may lancer appel di wax sëriñ boobu fulla buñ ko xamal ak fayda buñ ko xamal fulla buñ ko xamal ak fayda buñ ko xamal ak jub gu mu jub ak dëgg gu mu dëggu na ci taxaw moom xalif bi cirque xalif bi ci daaka bi fële bu mu nangu Macky Sall bu mu nangu mukk Macky Sall yàqal ko digganteem ak jaam ak sénégalais yi waaye bu mu nangu mukk Macky Sall yàqal ko digganteem ak Cheikh Ahmed tijaan Chérif attention bu nangu loolu mukk pour mu leer

mais xeex bi mi ngi entre ñoom léegi ne ko bandu mi entre amadou ba ab euh, ablaye dawda diallo ak la famille faysal bi ñu duggaat ci danse bi parce que marem faysal ak yaayam ñoom sen sen sen la a ah, mansour fay yaa ji nee na ko Macky goro bi <laughs> nee na ko <laughs> guñe na la ñaari banda sama doom mooy toog keneen du toog fii doom bu jigéen ñi Marème Faye dugg ci danse bi

diam ak pexem yalla ak dogalam affaire bi mu ngi jël tourne la boule est en train de tourner bouleversement mo fa am actuellement turbulence en zone de turbulence le dictateur est en zone de turbulence moo deug rek mo wo Macky Sall actuellement fu maayee nam fu mu mu ngi objectif moy de dafa bëgg dajé ak Ousmane pour jéem xol nak lay négocier ak Ousmane Sonko pour mom mu bok ci candidature bi candidat mom candidat ñi accepter ko mom Ousmane bok mom mu bok ñi dem ci élection yi mais lan la ci djublu moy bu bu ci Ousmane Ousmane Sonko bu daanee bu daanee loolu rek Macky Sall bu bokki ci élection yi c'est-à-dire fay sàcc élection yi moom sàcc na ba pare da koy sàcc il va voler les élections en zone de turbulence conflit am parce que Ousmane du ko nangu xam nañu Macky Sall mënul gagner mais paré na ces outils de de de de détourner les élections là outils yi mu wara jël pour sàcc élections yi daf ko légui problème am moy candidature est-ce que sénégalais vont ko accepter est-ce que sénégalais vont accepter accepter candidature Macky Sall parce que Macky Sall ci boppam xam na ni moom amul droit pour nekk candidat te conseil constitutionnel bi ñoom xam nañ ni n'a pas amul droit pour nekk candidat te ñoom bu ñu pour def liggéey bu salté conseil constitutionnel bi ñi ngi population bi soulèvement populaire Et Macky Sall il n'est même pas certain de sa candidature candidat nous valide. C'est stratégie boobu la Macky pour mu leer ma wax ni mais Ousmane teel averti, avertir nee négocier ak kenn pour recevoir kenn pour négocier avec kenn yow li ngay négocier yow li Tu war de ne ñoom lañu continuer di téye gaay rek ba xam ndax ñoom ñooy joxe nguur wala yàllaay joxe nguur loolu la quoi donc contexte bi moo nekk actuellement ci biir APR xeex baa ngi ci biir ah, entre Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba ñi nga xamni ne ñoom dañuy jóg rébellé wu pour créer seen parti bop contre Macky Sall tek ko ci ay conditions na do ko bandu mi teg pression Macky Sall ci Idrissa Seck bobu dal tek nañ ko ko Idrissa Seck doon nañ ko kaw jogé na fi moo nga gis Ousmane Idrissa Seck lan la mu ngi yuxu di lambal lambal rek parce que xamna ni euh euh euh le traite trahi moko dal Idrissa Seck actuellement fu mu ne nii dafa jaxlé benn di dem ci kër jo waa kër Jomay fay di fa jox diglé ay 2 millions xam nga joxe 2 millions di ko jëm a c'est-à-dire il est conjugué au passé merci pour les Sénégalais légui xex bi fu mu war toll moy askanu Sénégal ñun suñu combat fan la ñoom nañu xex seen biir mais ñun suñu xex moy contre constitution bi la ak Macky Sall du nekk candidat du bok ci élection yi parce que problème bi mooy la parce que l'idée li ma leen wax ni de source sûre Macky Sall source sur len Karim du au Sénégal un tek tank Sénégal wa PDS par ñom ñi ngi négocier mais Karim du il va pas venir parce que gaay duñ ko bay mu dugg ci fi Karim Wade du ñew lu leer la len wax Karim Wade du Sénégal. ñu ngi fi Sénégal nañ dem du inscrire na ñu ne dafa inscrire nañu wax ban décret ban la anamu nañu ko ban sénégalais gis un deuxièmement vous dañuy refaire procès bi fan faire refaire procès bi amul fenn buñ ko défé ci soufit, magui mais Karim wat du bokk pour mu leer nañ PDS nak ñom suba qui Ablaye ngi négociation <laughs> mais mais dafa am parce que Amadou Ba mi ngi taxaw Abdoulaye Diallo Diallo Diallo tam mi taxaw mu am ben troisième larron bu jógee le bu Fay. Faye Mansour je suis taxaw parce que Marème Faye ak yayam dañuy imposer condition lañu Macky Sall say deux manal na de nañu am ñaar da ngay dem suñu suñu sama dom moy tok leen li ci titre bir benn bokk yaakaar mu ngi bax gars yi ñu ngi toog di retenir seen suuf mais ñu ngi jonkoon daas fanaanal di ko yurul nag di ko lor ñu surveiller comme du lait sur le feu parce que ñooñu seen intérêt mooy nañ jox ci xaalis bi rek. nañ jot ci xaalis bi loolu moo lay intéressé mais gëmuñu Macky Sall même troisième candidature bi Macky Sall ñi nekk ci bëri ci benn cautionné ñu ko gëmuñu ko bés bu ko déclenché day kay rek nous allons les exploser pour mu leer nañ ñi nekk présidence nañu vérifier information bi xeex bi mu ngi seen diggante sa waay fu mu nekk euh, soxna fu mu nga xam day umra xaw ma lan day dem aventurier comme touriste la ngi vacances nee na na euh, bloqué mu ngi ñëw quoi bu ñëwee day dem direct séti sëriñ bi daka daka ba ca daka ba pa bobu la bëgg dem séti pa bobu nga xamné nit ku jub nit goor yalla la nit ku jub talibé tijaan di wax dëgg di jëf dëgg góor googu yaakaaruma ni Macky Sall dina mën dara ci moom ba kooku dugg ci biir pour jéem a modérateur entre Macky Sall Amadou Sall Euh, am entre Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba ak Macky Sall pour jéem a seet naka la ñuy régler problème boobu boobu ni euh, xalif boobu nekk ci Dakar ba dina ko ne xaw ma la tudd ku am tudd xaw ma Cerno xaw ma naka ci Dakar bi munta ne parce que kooku

Et day dina jël gagner par force mu parce que yalla la du ñom du ñun ñëpp de bindu ci té a la de Macky Sall de Macky Sall actuellement il est en zone de turbulence ko zone de turbulence ngeen ko ngeen ma ne Karim Wade du ñew mais ci biir APR mi ngi bax benn bokk yaakaar mi ngi bax li ma leen wax du dañ yaay marim Faye door na ci table bi ak marim Faye ñi ne Mansour fay war na nekk candidat pour élection présidentielle mooy góyutu Macky gis ngeen nag nu muy demee pour ngeen xam ko Kariwat s'est inscrit. Il, peut il n'a qu'à s'inscrire. Mais je te dis que Kariwat ne mettra pas ses pattes au Sénégal. Bindal du teg comme Sénégal ah, Tu es Idrissa Seck entre moi et Macky c'est fini Un poste premier ministre petit tralala fille, tu es na takk de malheureusement pour moom fait échec encore tu sortir. beneen bi mooy la gos euh, Pape Ahmed Ahmed Ahmed bay bi ñu jàpp ni Ahmed boobu tamit bañ ko gaa yi dégluwee de suuf sûre ba ko gars yi dégluwee la mu wax ga ak critères yi nee na moom moo leen moo joxee moom il a reconnu moo leen jox USB clé USB bi clé USB bu vide moom moo leen ne am na vidéo Ousmane Sonko ak Adji am na ko ak photo yi gars yi kii booba mu ngi waaj dóor gars yi lu ma enquête yi enquêteurs yi ñëw mu dóor leen 10 millions mu jox leen clé USB bu amul dara ba ko gars arrêté enquête arrêté ko mu ne ko mu ne leen man mun leen ma arrêté parce que boo la ma arrêté ma éclaté deal bi parce que dossier Adji Sarr bi lépp complot la lu mu leen wax lu mu yi de source sûre ah yow tamit nous on a fait le service militaire nu mu tey suñu classe yi ñu ngi fi ci biir nos classe ñu ngi ci biir ay kilifa lañ suñu classe yi ah tamit <laughs> ñu ngi ci biir la mu wax enquêteurs yi laa leen di lu leer mun leen ma arrêté mënuñu ma tëj bu ñu ma jéemee arrêté bëgg ma tëj ma toj diil bi diil bi mooy lan su ma tojee diil bi Marème Faye sal mu ngi ci biir Dior Diagne mu ngi ci biir Antoine Diome mi ngi ci biir. Euh, ak euh, comment dirais-je là beneen avocat bi mu ngi ci biir ak Mansour Mamour jàlloo mu ngi ci biir ci deal bi ci dose complot Adji Sarr bi te te te dara du ci dëgg lépp fen la lépp fen la montage la fen la dañ koo wax ñoom ñoo ko tëgg ba pare contacté ma ma man ma dem ci Adji Sarr bu dox ko man maa ko dox man lépp fen la dara du ci dëgg ma ma toj bi madame Faisal, daf ci tak rib mu ngi ci bir tok ci ak Dior dañ ci ce sont les cerveaux gars yi fele ñi négocier ñi xaar Macky Sall joxe ordre pour ñu bàyyi boy. Macky Sall du ken Macky Sall joxe ordre tout de suite nañ leen tout de suite nañ ko libérer légui nañ ko ñi bi Sidi mbay waaw a été libéré oui allo. waaw grand ziar naa la. waaw maa ngi lay ñangu ziar na nga def. waaw sant bu baax. xam nga Sénégal moom justice amatu fa xam nga ku nekk ñuy teg seen tànk quoi. waay xam nga dèjà. dafa am loo xam ni yoon da koy tere waxuma la Sidi Mbaye Sidi Ahmed Mbaye mais ki ko sant affaire bi ki mu jaayee ki ko jox dix millions yi kooku dañ ko war a jàpp. voilà loolu la. parce que tey jii mënoo ñëw ne man dama soxla vidéo Ousmane Sonko bu mu tëdd ak benn jigéen. Mm-hmm. kooku partage de données personnelles la. Mm-hmm. loolu yoon da koy téré déjà. mooy japp Sidi Ahmed Mbaye da jappo kiko jox 10000 mille millions yi ba muy dem di porte plainte. ngay. donc ça veut dire que ñom xamuñu fu ñuy tek seen tan fi mu ni nii dañu jaxasoo. exactly. waaw dañuy jaxaso jaxaso bi weesuwul aussi nga jël jigéen bu melni choro Mandela.

waaw. au pire des cas nga xam ne bu dara yëngatoo sax au moins ñu mën koo sauver. mu mhm. lay woon ni ñii dañuy jaxasoo. Mhm. waaw dañuy jaxasoo ils sont complètement déboussolés xamatuñu lu ñuy def. Mhm. léegi nag euh, grand dafa am dañuy dem ci statistique gis nga docteur Abdourahmane Diouf moo xam ne waa ju ma la borom xam-xam la bon voilà. ñëw na keroog ci Pape Alé ñu dalal ko yaramam tàng mu ne Ousmane Sonko la soxla face à face.

pouvoir bi mhm. Mhm. ak opposition pour gars yi ñu ñëw toog ñu def débat mom fan la nekkoon. Mhm. il était où. fan la nekkoon. il était où. waaw. <laughs> Ousmane Sonko lancé na leen def ñom ñep ne leen politique bi ñu andi. politique xam-xam la débat la débat tek ñi jàkkaarloo face face ñu toj. fi la leen défier ñom ñep pouvoir bi opposition bi kenn pour affronter ko ci débat. Nous avons léegi du dem élection législative mhm. mu bokk xaw ma a la xaw ma leen toroxal Ousmane Sonko nga xam ne nekkul Nous avons liste bi mu door leen du Nous métti perte de vitesse mu ñëw avec un sagar programme ñàkk crédibilité mhm. pour jéem a langaamu ci Ousmane pour jéem a am crédibilité ñu yónnee ko ngañ mhm. ngañ ngañ plateau bi mu doggali quoi Ousmane du toog ma Ousmane Macky Sall la soxla du seen morom. voilà Ousmane du seen morom gis nga temps dafa am loo xam ne il faut ñu wax ko Sénégalais yi dañuy yeewu actuellement. Mhm. Cheikh Bara Ndiaye dafa dem woon Fadjri. Mhm. bi mu demee foofu mu am ko ba seize mille ba gars yi di ko wax ne vraiment pour la première fois ñu am seize mille bi ci weeru koor. waaw le même Cheikh Bara Ndiaye jóge woon Fadjri samedi passé mu ngi woon mhm. mu dem Sénégal mu am fa sept mille cinq cent bi. léegi lan moo waral loolu. c'est e e e la même personne qu'est-ce qui change ça veut dire que sénégalais yi ñoo suur Seneweb ñoo suur yenn télé ñoo suur TFM ñoo suur Sen TV. foofu la mhm. foofu la xeex bi toll fi mu toll nii. démb bi bi nga njëmb nekkee war a faj bi Sen TV booy Pape Malick Ndour mu yoon foofu. waaw mais mille vues yi dégg naa mille vues la am. waaw. sénégalais yi seen mentalité bi mu toll nii dafa avancé ba. jaratul jutlan sax naan naa dem xooli lu am seen TV lan mu am fële web geneen ak geneen. donc fi mu toll nii la hmm. révolution marche à très grand pas vouloir éliminer Ousmane Sonko kooku c' est un rêve. c' est un rêve boo xam ne bii irréalisable. waaw mënoo ñëw comprendre nga Mauritanie ak ak ak ak Brésil bi ah mënuñu xeex Brésil xajul ci Mauritanie ci football. wallaay wallaay. lañu actuellement. APR ak Pastef Benno Bokk Yaakaar ak Pastef foofu lañ toll Mauritanie ak Brésil wax dëgg yàlla bu Mauritanie ne damay qualifié te Brésil du qualifié du football coupe du monde ay caaxaan waaw gars yi lañ delloo seen xel Macky Sall dafa rek jigéen bu biir kenn du ko dugal kaso rawatina ku nekk à terme presque mm-hmm. ah, mais grand wax bi wax bi xeex rek xeex rek koy lijjanti loolu la xeex rek koy lijjanti waaw te ñi nga xam ne nag dañ nekk di attaqué Ousmane Sonko naan lu tax Sonko di dalal Idrissa Seck il faut gars aussi ñu ànd ak dal. Mhm. Ousmane Sonko c'est un homme d'état. Mhm. Idrissa Seck nu mu mën di mel c'est un homme d'état nit bu débarqué sa kër cinq heures du matin avant tout di nga ko dalal. Mhm. waaw Ousmane Sonko xamul ndax Idrissa Seck dafay ñëw ne ko Macky Sall day yónnee ni ginnaaw suba ñu ray la wala yeneen ak yeneen. Mhm. xamul lu ko bëgg a wax donc la moindre des choses mooy mu dalal ko surtout ku ñëw sa kër cinq heures du matin. Mhm. donc na gars yi dal wóolu Ousmane Sonko topp ci ginnaawam te am na wax bu mu waxoon billaahi du ma leen mos a woon nañ jàpp ci loolu. Mhm. bu waxtu wax jotee aussi génn wax dina wax ak ñun na gars dem bindu ji comme ni ko waxee. na dem bindu ji focus sur l' xam Ousmane Sonko day bokk par force. Mhm. day en deux allah incha allah waaw. moom la de du keneen du dem leen bindu ji rek. waaw nekkal tey ñoom ñoo am problème ñoom ñoom ñoom APR benn bokk yaakaar ñoom ñoo am problème mais du ñun bu leen jàpp di gars yi mu téy ni di tëj tëj wéyalu oui ça va na nga def bu baax waaw. Ah, eh, xaaral ma wax ak yow parce que man bëgguma ñu génn noonu. ah ok ma bëggoon wax rek. waaw xaaral. waaw loo xam ne bariwul waaw. waaw mhm. euh, li ma la doon bëgg wax mooy. attends attends xaaral. Ousmane comme yow mi nga. oui allo. Mhm.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

Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. waaw euh, non damay damay dalal sa xel rek sa Seck du fa dugg noonu mu dem fa ak téléphone di ko enregistré benn deuxièmement sa Seck bu muy toog di wax ay témoins yi ñu ngi toog Ousmane doful quoi Ousmane xam ne bu baax Idrissa Seck jëlee Idrissa Seck la mu fa jëlee du ko wax sénégalais mais mais non parce que daf ko doo daf daf ko toroxal daf ko toroxal sa Seck la mu wax dem naa fa mais la mu fa jëlee waxu ko sénégalais yi quoi. donc le rek doyna quoi ou Seck ça mo le gëna a euh xamna xam fu jëm voilà ok d'accord mais ok merci. Mm-hmm. waaw ok d'accord ok ah, ok alors donc amna na ku ma bind mu ne ma xaw ma Mandela a perdu quoi son bébé attendez euh, dafa am euh, kan ma ma ko wax am ku ko fi bind la ci information il faut ngeen vérifier ay information bala ngeen koy euh loolu du loo xam ne dañ koy euh dañ koy il faut ñu xol ko bu baax quoi wa il faut vérifier quoi il faut vérifier quoi waaw vérifier leen euh, information bi pour l'air, l'air, l'air, il paraît que, il paraît que Choro a perdu son bébé. Il paraît. C'est reste à vérifier quoi. Waouh. Mais là, on peut vérifier l'information. Beaucoup. Ah, ak Sitor Ndour ñu ne dañ ko libéré le violeur Sitor Ndour a été libéré Sitor Ndour dañ ko libéré ci naka te pourtant dañu 10 ans waruñu libérer Sitor Ndour il doit pas quitter il a violé flagrant délit ay kalsongam ay bagage am yëpp la téye donc Sitor Ndour war duñ jënd mhm. ton Ndour peut-être comment il peut être libéré exactement c'est ça c'est des informations qu'il faut vérifier quoi parce que ñun mun nañu ñëw dugg fii dañuy jëm a euh, andi ay détails fii quoi dañu focaliser wu ci loolu quoi gisaguñu ko bu ñu ko gisee nag bu boobaa ñu xam voilà loolu nous dañuy nekk suñu dynamique dynamique bi ñu nekk mooy sénégalais dem leen bindu dem leen ngeen bindu ku ci nekk taxaw dëgg dem ngeen le six le maximum possible ba pare ñu préparer combat bi waajal suñu la quoi parce que nous, seen ñi ngi te dinañu xex ñom dinañu xex seen biir li ma leen wax ni information bi téye leen ko Karim Wade du ñëw du teg tànk fii Macky Sall actuellement entre Macky Sall Abdoulaye ab euh, euh, Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi tang jër Idrissa Seck moom il a compris kàjji nañ ko quoi parce que ñoom nekk ko bandu bi ñëpp ñoo mobiliser ñu non non ñoom teg ñom ku bokul seen xeet do fi nek premier ministre.

information yu wóor laa jox ni bul ci dugg. Ah, ah. waaw. waaw jàmbar siyaar naa baba waaw. waaw maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal euh, Pa waa ji ñu gën a sànq. li mu war sànq ci euh, président Sonko comme maanaam. gars yi dañoo jàpp ne daal li ñu xam Idy warul loolu dama ci dalal xalu xalu loolu loolu maanaam le président ko du wër benn Sénégal loolu hmm. na Sénégal yi dalal seen xel loolu xam nga ñoo génne wax boobu waa APR ci boppam waa APR ñooy génne saaru wax yooyu pour jëm ko diaboliser ak ak ak patriote pour xaw a dundaloo xel quoi te loolu ko nangu boobu leer na ci bopp Sénégalais am na lu xam lu sérieux la la per bu fekkoon lu sérieux la la président Sonko dana génne ci Sénégal wane na lii nii la demee ak ñun kon nañ nañ nañ gëm seen liggéey ñu jox ko ci xam ne nekkul ku leen di nax. loolu laa bëgg daal comprendre du dugg duggul ci yow kuy naxaate. mais xam xam nga boo boo xoolee. waaw su naxaatee. ñooñu tamit xam nga boo xoolee ñun. mooy temps bi le yi posone woon ko mooy du ko gars yi boobu da nga doon ay portes yoo boo xoolal waa affaire ci boppam doon commandeur ne. ana ana ñoom Bassirou Diomaye Faye ana ñoom El Malick Ndiaye ana ana leader yi nga xam ñoo ko jege nangu ñu xeex affaire yooyu. Mm-hmm. ba gars yi commencé di ci laa bëgg suñ groupe may leen bàyyi leen yooyu yéen ay fexe ba jaay seen leader mais finalement loolu fekk luñ ci fekk Birame Diatta dafa génn wax rek gars yi jàpp ko ak El Malick ñu ngi jàpp Bassirou Diomaye Faye jàpp El Malick Ndiaye ah ana Fadilou war a arrêté. suñu biir am nañ koy ne mooy jàpp seen Sénégal yi di leen rey di leen tëj di lu ko neex jàpp di ko façonné kooku bu ñu amee lu ñu wax kooku lañ war a waxal dañu bàyyi Sénégal Sonko ñu bàyyi liggéey te muy dëgg ñun li ñu war a nekk loolu mooy moo ëpp solo bi bi ñun ci woon li ñu war a nekk le président Sonko ba mu jëlee wax na ko na arrêté loolu mooy dëgg liggéey bi ñun ci li ñu war a ba sëñ Diomaye Faye ñu xool fekkul téye ko man man man mën a jàppe ay projet ay nervi la ne militant wu APR lañ surtout bi tey dafa jot tamit ñu leeral askan wi ñoom ban position lañ taxee soit ñu ne ñoom ay militant wu APR li ñu xam nga xam nga lu ji nga ji nga ji nga ko ku ñëw pour arrêter la waaw na la carte professionnelle même police police amul droit gendarme militaire amul droit ñew sol civil nga ñëw nak damay arrêté nit ki arrêté la nii te yow présenté sa carte professionnelle ni man police la wala gendarme la wala homme de loi la Ben, deuxièmement auto bi la nar andi dafa war am mandarga police waaw auto bi lay andi bi la andi pour japp la auto bi dafa non même, rek même dafa am très important

c'est pas possible muntanek a parce que Diomaye fay may ma rek Diomaye fay ñu ko wone ay intellectuel la droit ñom sen droit bi bu ñu dañuy andi carte professionnelle won ko ne c'est la police la BIP ñu présenter carte ba mu voilà.

waaw mais mais xam nga d'accord li nga wax dëgg la mais xam nga loolu yëpp problème bi mooy. ñii kii nekk ci bopp réew mi. respecté wul benn loi Sénégal. respecté wul institution Sénégal. ñu mu tabb ci poste yi insi respecté wu ñu loi Sénégal respecté wu ñu institution Sénégal donc loolu boo ko xamee rek da nga dañuy dal di noppalu rek ñun nañu wut stratégie bi nga xam ne dañ leen di contrecarrer. parce que boo nekkee avec un dictateur moy ko xamne ne respecté wu loi respecté constitution yonam ci yonam ci dund intérêt rek la donc bo amé nit ku gouverner ku mel da di parce que man suma ñi naan dëkk bi amul loi amul loi qui yow nga xamne ne tok ci institution Sénégal institution Sénégal ah, loi Sénégal ku dem ministre nga dem voter sans mais mais vous nervir la man su ma dëggee ñu naan way dëkk bi way su ma dëggee dëkk bi amul yoon amul yoon ku ma ko wax dama lay jëppi soo ma ne commencé way dëkk bi amul yoon man la xoolal kii tamit xoolal rek yow yow yow yow yow ñoom ñi ngi mel ni démocrate la ñu amal affaire ah. waaw waaw léegi xam xamal la moo tax. Hmm, xamal. Hmm. maanaam loolu am solo quoi. da am solo. waaw. wax wax wax ñoom loolu ba loolu ko wax rek. waaw nañ dem wane nañ at bu am solo te wane nañ patriote yëpp ne actuellement xeex bi nekk fu xeex waaw gars yi ku nekk xam na li nga war a def combattant yëpp xam li ñu war a def wane nañ ne xeex bi léegi nekkatul ay xeex. Mhm. loolu moom dafa war a leer gars yi patriote yëpp ñu xam ko xam ne am na beneen dimension bu xam ne xeex bi jël na ko bokkul ak xeex bi. te moom encore dama leen di jaajëfal wala nañ ci extra. Mhm. loolu moom dama leen di jaajëfal bu baax a baax di naqaru tamit liñ def femme boobu mooy. Euh, kii euh, nu mu tudd sax. Euh, kii Dior. mooy femme boobu nekk woon fa Dior rek. Mandela Coro Mandela. Hmm. kooku kooku femme la boo xam ne dafa diim damay gis ay laay fam day wax dëgg. Hmm. mais actuellement ñoom képp kuy wax dëgg rek. nekk ci Sénégal yi di def laay Sénégal yi di ci intervenir di wax dëgg. da da leen di ba dañuy wut ay caaxaan yoo xam ne. ay tappale yu ñuy fexe teg ko sa kaw pour la doole. loolu nag lu ñuy ñaawloo ci réew mi lu ñuy ñaawloo ñaawlu la. Mm-hmm. parce que Macky la nit ñi ñu dund moom ci réew mi boo koy jàngee mu gën régime Macky Sall parce que ku xam ne il ray ray tëj bëgg ci dëkk ay ati loolu lu ñaawloo ci réew mi lu xam ne dafa def Sénégal yi ñu jël ci seen responsabilité parce que xeex moo koy réglé kon dëkk la dafa tax dëkk bi ñu jëlee ci koor gi ku nekk na jël responsabilité ñu def. faas a Macky Sall mu génne suñu dëkk nu politique yi parce que combattant yi ñu jàpp dañ leen loolu teewu ko fenn. voilà loolu dañoo suñu droit la la terre d'Assogou kenn du ko laal ñu toog suñ kër loolu amul fenn ku laal terre d'Assogou ma kenn mënuñu tere wàcc. bu ko neexee nag tëj mu sa arrêté fépp ñu ngi attaqué terre d'Assogou dañ leen di attaqué fépp ñu ngi koy laal dañuy wàcc ci sale yi bu yemoon ñu ëpp yeneen pression pour tëj ko patriote yi mais li ñuy def dañ ko arrêté.

voilà c'est bien donc Thioro est évacué à l'hôpital mais c'est bien voilà parce que de dafa bëree ay panel infiltré di ay information après il y yow sa crédibilité il faut que des fois il attention ci ces informations. voilà damay c'est aller à dire prêcher du faux pour avoir du juste du vrai voilà donc si euh, Sitor Sitor mi ngi naan ko libéré pour la libérer. koy Siteu c'est un violeur dafa violer violé Ni jàpp ay caleçonam ay silipam ay caleçonam ay bagaasam yëpp ni téye tap preuve matérielle tu a violé c'est un violeur Li fi nek moy dëkk bi amul yoon li ni wax ki injustice mo am violeur et puis du Siteu rek même dans le palais de Macky Sall y a un responsable qui a un ministre qui a violé

te Macky fan la bëgg wut au secours mooy xalif xalif tu xalif xalif bi nekk ci Dakar foofu la bëgg dem ci góor googu képp ku am contact ak xalif boobu nga jege ko wala nga mën a wax ak moom avertir ko balaa Macky Sall jógee Makka ñëw fa mu dem ci tourisme am bu mu dem noonu il est allé se vadrouiller pour fu ne moom dafa dem aji balaa muy ñëw di dem foofu di jéem a dugal góor gi ci li nga xam ne euh, sénégalais yépp dinañ ko xeet ci li nga xam ne. taalibe dinañ ko xam Macky Sall nag dafa ay ci ndaanaan ñu baax ñi yëpp dafa leen soppi daf leen ay nit ñu jubali ay golo ñoom ñëpp donc xalif général boobu nekk ci daakaam na toog foofu mu téye daakaam ñaari yoon na ku téye ñaari loxo te xam ne dafa am mbooloo bu takku mu nekk ci ginnaawam te mu xam ne ñooñu dañ ko gëm gannaaw yàlla ak yonent bi dañ ko gëm wóolu ko parce que ci dëggu téem ak manu téem na em foofu bu mu dugg mukk ci li Macky Macky Sall bëgg a dugal moom na ci loxom parce que par A ou B Macky Sall mënul am ndam ñoom mënuñu am ndam parce que li yàlla jeexal jeex na yàlla lu mu jeexal jeex na et Macky Sall il a fini jeexal na ñii nekk di xëccoo fii ak ñoom fii jéem a postuler kawe menacé Amadou Ba il a fini Abdoulaye Diallo Diallo il a fini c'est-à-dire APR sa ak benn bokk bi ak seen yenn seen reñ moo jeex ci kaw suuf Sénégal jeex na. ils n'ont pas de preuves. ils peuvent le dire si soutenir est libre ils n'ont pas de preuves waouh mais dès que vous avez injuste da ngay mais viol ak jël bakkan ban moo gën a Nous fait adjudant chef de la gendarmerie commandant de brigade adjudant chef de la gendarmerie commandant de brigade nous avons ko dans le kam dem sergent chef en pleine fonction nga avons ko tap bout dem dem fekk benn un agent de la sécurité nga dem jël ko rey mais kooku ak 18 bakkan yi dee ci mois de mars lan moo gën a fort loolu ak ak ak viol ban moo gën a fort est-ce que da ngeen gis enquête ci loolu waaw kon de bu ñu libéré Sitor ngeen xam ne rek ngeen jàpp ni justice amul Sénégal waaw kon <laughs> loolu moo fi am rek <laughs> c'est pas c'est pas la fin du monde ça c'est pas la fin du monde hein ñom ci injustice la ñuy wéy mais li yépp lépp la responsabilité revient à l'armée sénégalaise toujours ils sont toujours interpellés du wiiri wiiri jaari ndaare fi li ñuy wax foofu kërtiñ jàppal bay indi tegal fi dana am du am élection responsabilité bi sécurité Sénégal ak bakkanu sénégalais yi gànnaaw yàlla ak yonent bi mu ngi ci loxo armée armée Sénégal boo ko armée cette responsabilité yàgg la vous êtes payé pour ça Vous avez di fay fay seen i jabar fay loger leen habiller leen nourrir les jox leen moyen de transport on vous a mis dans de très bonnes conditions pour ngeen jox ah. Le tout ça tourne autour la responsabilité majeure revient à l'armée sénégalaise la puissance politique Amdefoumou M bu ñëwee ba mu jàkkaarloog puissance militaire day lem gaynam la puissance de la justice am na fu mu em bu ñëwee ba mu jàkkaarloog puissance militaire day lem gaynam kon puissance militaire amul benn puissance politique wala euh, euh, juridique wala qui bu ko mun eh, bu interférer pour bloquer ko puissance militaire bu mu jënnee bu jógee rek yeneen ñun ñëpp dañuy dem seen guerre donc la responsabilité revient à l'armée sénégalaise yenn yenn ak ah, yenn te fekkuñu ci kenn ci këram ne ko kaay ma yóbbu la militaire yooyu yaa toog jël sa décision dama bëgg a dem armée nga dem recruter apt nga dem ñefe ji kële jóge fële ñëw xam ne intellectuel la mu dem jàng dagg recruter apte ñëw bu ko sincère mu dem dagg ñëw nekk commencé di takk ay sous na aspirant aspirant ngay commencé aspirant tem nga dagg ko sous-lieutenant lieutenant nga dóor ñaari baret nga commencé ngandal ngandalu xaalis bi du dugg ñu teg la ci ay conditions yu mel bo rombé soldat bi mu tóojale yooyu mo leen na mais respect ngay dégg rek ñu ne dégg nga teg ci benn barak capitaine xaalis bi du dugg avantage bi di gëna jënd ngay dox de nga dóoraat 5e ki ñu ne la commandant nga lan waaw mo commandant mo respect lieutenant bi bu ñëw fekk commandant bi mu toj mais respect mo commandant ngay nganda ngand du jiital dekk sandi funa di avancer muy neex xaalis bi di gëna a sénégalais lam daa baa ngi du ndekki du añ du reer bu feebaree du faju yow yaa am capitaine commandant commandant colonel commandant nga jóge foofu euh, lieutenant colonel benen baret ñu tégal lako lieutenant colonel avantage du di xaliss bi di gëna a dugg ñu am ne kat-kat yi di tégué sénégalais ba nga tëdd ci kaw hôpital bi ordonnance jouni amu ko ñu naan déet nga teg ci benen baret colonel sénégalais ba ngi fële bu bu bu taw bi tawé amul fu mu dëkk kër gi daanu amul ndox du añ du reer du ndekki étudiant bi jàngul yow nga takk colonel ngay avancé Sénégal bi mu ngi foofu lamu ci ci ci insécurité bi ñu ne déet déet ma dóor ci nag général waaw Sénégal baa ngi fële bu yeewee bu ndékkee mu ngi toog di xaar añ ndax dana takk wala takk maire bi nee na damay yeewu teg kin bi muy bax bax ba xale yi nelaw ma teggi kin bi damay woor poti ndox rek laay dogoo yenn généraux yi colonel yi sergents yi yéen ñëpp on vous a mis dans de très bonnes conditions pour lan c'est pour assurer la sécurité de ces citoyens sénégalais c'est lambda ñëw di doole yoyu ñooñu ci biir peuple Sénégal bi ay ngir ñi ngi fa seen bàyyi gaañu na seen yaay gaañu na ay liir xalé yu tooy xet juddu amuñu nday amuñu bàyyi nek ay ngiirim seen alal ngeen yor ñoom ñi jël seen alal jox leen pour ngeen aar leen yéen amu leen droit pour trahir askan boobu yéen mooy malaat ba nekk ci hôpital bi béykat ba nekk fële di béy day xëy ruuj béy ji toog di xaar di xalaat ndax yàlla dana taw wala du taw far yàlla taw mu góob béykat boobu as tuut ga am noonu mu jaay ko ñu ne ko da ngay jënd taxe mu dem jënd almet ñu dagg almet taxe bi mu dem jënd duulin ñi imputé taxe bi mu dem jënd ceeb ñu imputé ko xaalis boobu la ñuy dajale yéen pour jox leen armée Sénégal yéen jox leen jumtuwaay jox leen tenue fay leen seen salaire. fay sa jabar salaire fay say doom salaire fay la nga dem jàngi yokk sa xam-xam jox la condition yu baax loolu yëpp pour nga aar sénégalais bi armée boobu yow amoo droit pour wor askanu Sénégal ngir jëmm benn nit intérêt benn nit waxoon naa leen ko fi de tey information yu ma leen wax ni ba ma koy wax ci armée Sénégal boobu jënagul gis ngeen léegi intérêt bi fan la nekk famille Faisal ñoo nekk di xeex seen biir ne doo ko bandum entre yaayu maanaam Faysal maanaam Faysal ñi bëgg a imposer Mansour Faye pour me remplacer Macky Sall Amadou Ba ne fi du fi dal mom moy tok Abdoulaye Daouda Diallo ne mom day tok fippu Idrissa Seck ñi kàjj ko beneen quatrième larron bi jógee fële ma la fami wad toujours c'est na doko band wad ñom ñoo ñew tok gis ngeen de le boule bi cercle bi vis boobu moo nekk di téye Sénégal en otage ñom ñoo tax Sénégalais yi dee ñu tëj yenn armée Sénégal yéen ngi tok di xolé amu leen droit boobu seen mission moy aar citoyen sénégalais bi bu onké nga ñëw taxaw ci yow te ne mais la sa onk lu xew wax nga dag pour ma je ma régler sa problème danaa ko régler nga jog taxaw ci mission armée la mission de l'armée c'est protéger le peuple sénégalais contre l'agresseur contre l'injustice mais c'est protéger le pays contre l'agresseur venant de l'extérieur ou bien le déstabilisateur à l'intérieur du pays cette vocation c'est pas la réputation de l'armée sénégalaise n'est pas pour une personne le Sénégal est là, les personnes vont venir, ils vont passer, les institutions demeurent. Il n'y a pas de général, on vous paye. Il y a une de fait Sénégal, c'est l'argent du contribuable qui vous paye. Si vous aujourd'hui, à part Dieu, c'est le peuple qui a fait ce que vous êtes devenu là, c'est grâce au peuple sénégalais. Il faut rendre la monnaie au peuple sénégalais. Il faut être une armée républicaine, responsable, une armée d'anticipation, mais une armée de paix et de dialogue mais pas une armée criminelle qui va s'associer avec un dictateur à la tête de ce pays pour assassiner les Sénégalais. Malhonnêtement, comment est-ce qu'on peut venir enlever un sergent-chef en pleine fonction, plein service, on l'enlève, on l'assassine et oh, la DIPA ne dit rien. Un gendarme, on l'enlève. La DIPA ne dit rien. Donc arrêtez. 18 personnes assassinées au mois de mars. L'armée est là. Oyalo. waaw. allo grand Daba. waaw. ça va ça va. yaa ngi si mm-hmm. man maa ngi tirant ci sa laaj bi quoi xam nga man xam nga la moom moo jaaxle Daba ñun ñun dañu ay jullit lañu mais man affaire dafa maa jaaxle trop quoi parce que man euh, ak sama jàng bu gàtt bi lu ma lu comme nit boo naree dem Makka. boo mhm. mhm. nga am yëpp nga fay ko. day fekk ses voisins yi kenn du ci am problème mooy lekk mooy dund mooy kenn daal lu ci am problèm pour nga mun a dem def sa Makka sa sa sa mais man dama gis ne Macky Sall ak lu métti lu muy teg Sénégalais yi. Mhm. ñaaw bi muy def Sénégalais yi. rey bi muy def Sénégalais yi. teg li muy def Sénégalais yi. ba pare moom mu jóg mu ne dem def xama umra xama loolu. Mhm. te man man mu ma ko gisee dem photo bi gars yi def ko ci tëdd yi. Mhm. non dama ko dama ko dama ko dama ko yërëm. moom mu xamoon. lu koy xaar suba. muy def umra. Mhm. dina woo population Sénégal mu jéggal leen balaa muy dem umra bi mais fu mu ne nii mu ngi teg Sénégal yi fitna bu mais Macky Sall amul umra Macky Sall dafa dem fàttali tourisme non il est allé faire du tourisme. moo tax ma la moo la man yi may xam gars dem nit alentour seen kër yi yëpp seen voisin kenn ci am problème financement. kenn du ci am problème kenn du ci am dara lu koy métti mu door dem yi lan la ñuy wax ci yii yi ci alxuraan bi lan la ñuy wax il faut que dëkk stable kenn bañ am problème kenn am bañ a am métti nga dem yàlla nangu sa hijji bi mais yow yaa ngi rey Sénégalais yi yow yaa ngi tëj Sénégalais yi yow yaa ngi yi ba pare yow nga ne da ngay dem hijji man affaire bi dama ko xool seen bi affaire bi def ma def cinéma ma ne man yaa ngi Macky Sall Macky Sall damaa amul moo koy conseillé mais mu ngi koy dugal ci safara nag. Hmm. Macky Sall ku koy conseillé mu ngi koy dugal ci safara parce man sama xel bi mayuma may def nit lu bon su ma fa ma jàkkaarloo ak yow wala soit ma dem def nit lu bon ba pare ma dem toog man ah alhamdulilah rabbil alamin man si sama gis gi balaa muy dem nekk boobu noonu. mu demoon woo population sénégalais yi mu toog mu ne la maa ngi leen di jéggalu maa ngi leen def mu changé at mu génne yëpp lu mu tëj ci kàddu bi yóbbu leen ku maa ngi daan wol fajiri sànq ñu ne ko la eh, sama séeréer coro ndeysaan. temps yii moom doon dana moom ci téléphone. dañ ko jàpp te démb ba xam nga. waay waay ñu delloo ko tey mu dem tey mu dem day téye ko yóbbu ko garab bi. Mhm. maa ngi dégg ñu ne dafa dafa dafa avorté. waay.

à travers injustice bi avons dit ngi intérêt Ousmane Sonko intérêt Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko a tout perdu pour le Sénégal dafa tout perdu pour le Sénégal du n'y dafa ñàkk lépp kon quoi bi le sénégalais la pétrole bi gaz le suñu zircon bi alal ji yàlla jox Sénégal moom la c'est di jël dem jox ko tubaab yi le Sénégal ngeen dëkk ci le Sénégal.

soo waay soo bëggee lim ok d'accord allez donc toujours coow li yëpp problème yi am yëpp yëpp yëpp yëpp ñii nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan te waruñu woon ñàkk seen bakkan bu fekkente ne armée bi taxaw na taxawaay bu dëgg taxaw dëgg te yàlla tax taxaw respecter seen engagement répondre à critères ak li tax ñi leen di jañ mooy lan armée nation bu faites seen devoir en Sénégal def avez ko kon daanaka am na ci ndimbalu yàlla bakkan yi bëri yi rot ñi rey leen du am du am mais c'est parce qu'il y a une différence quelque part de l'armée sénégalaise et si je parle de cette différence, c'est les autorités de l'armée ñi am ils n'ont pas rempli leur mission. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Dédé. Parce que je ne peux pas comprendre. Yo. Nga xamne yow force dernière force bi yow la bo joggé bo né Macky Sall do ndeki Macky Sall du ndeki tay do ndeki Macky Sall du ndeki bo né tay do fi bu wala sa du togg ngeen accepter comme ça un civil un arriviste comme ça un assoapé de pouvoir quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir la gourmandise du pouvoir quelqu'un qui voit que au bout le bout de son nez quelqu'un qui a la plus de ses intérêts un arriviste comme ça un incompétent incapable Mouté en otage comme ça il tue les Sénégalais, il enlève, il tue, il assassine. Flagrant délit, il empoisonne. Vous n'avez faites un capitaine de la gendarmerie porte le poison Tu suis mag ceinture Macron ceinture porte bouteille bu la bouteille qui a cette liquide jaune portée par le capitaine un capitaine de la gendarmerie un officier de la gendarmerie qu'on utilise pour empoisonner un citoyen sénégalais en, en plein jour, en flagrant délit. Le capitaine Jean euh, euh, Sylvain euh, Malak, Jean-Sylvain Malak, un capitaine. Après Légui, il est passé commandant promotionnaire. Promotion. Après avoir tenté d'assassiner le président Ousmane Sonko, Pompeko, flagrant délit, n'y a plus 10. Et on, ose me dire qu'il y a des hommes intègres dans la gendarmerie. Il y a des hommes intègres et honnêtes qui armés. ay gorial nit ni ragal yalla, ni ragal yalla, ragal ngi ci armée donc ngeen gis ko ngeen gis ko ngeen ngeen dem yalla laaj len. Tek Ousmane tek euh, capitaine bi teg leen ñan ñoo am responsabilité pour pour lan ngeen di wax quoi yan ñi ngànk décision dans l'armée sénégalaise là. askan bi jox na leen lépp yoomal xiyaam yàlla na leen yéen le peuple sénégalais vous a donné tout yéen lan moo nekkoon sen taxawaay yéen yéen yéen lan moy sen mission pourquoi ngeen dem nek ay soldats lan moy objectif bi lan ngeen ci jubloon ni lutax tax ngeen di tok di xol ni ñi rey ni toroxal sama jami yi rey leen yéen lan ngeen di wax te yéen yéen yéen wara ar a aar parce que dañ il di a armée armée je m'adresse à vous lan une a Et réponse Et pourtant yéen ñëpp ku fi Faut médaille. général 2 étoiles trois étoiles quatre étoiles colonel lieutenant colonel gain. incarner tu, tu, da ngay c'est un un dieu quoi ils se prennent pour un demi-dieu parce que je suis colonel. fait ben benn ben lapato ben, benn doxandéem bu tekkiwul dara ma nga toog un arriviste un accidenté de l'histoire un assassin un criminel un dictateur bii rey mi ngi toog fële ne leen këf tey leen def futti tubé yi tubé yi ngeen sol daf leen futti taatu neen mu takkal leen becco yéen ay becco la leen takk moom rek mooy sol bi quoi. Waouh, c'est ça toute une armée c'est extraordinaire c'est-à-dire c'est la génération de ces gradés là quoi n'y est-ce que est-ce que c'est nañu post poste est-ce que nous c'est un avancement bi par rapport aux anciens quand je parle aux anciens les gens Alfred Diallo les Amadou Belali quand je parle de ça je parle de euh, Almami Tamba <laughs> Waouh, je parle de Almami Tamba je parle de, de, de, de Général Dassouza, je parle de Rahan, je parle de euh, euh, Abdou Selignan, Challenger. Ces gens-là, nga xam ne boo leen gisoon da ngay am fierté da ngay des nekk dem sol tëddi Senghor yàbbu leen Abdou Diouf yàbbu leen daful sax ñooñu bu ñu armée Sénégal ñooñu ñoo tax ñu wax armée Sénégal ces hommes ces braves hommes nga xam fuñu ñu romb rek dañuy bay trace da ngay xam ne armée militaire romb na jamono bu militaire bu rombee rek day bay trace c'est comme bukki bukki bu rombee ñu ne <laughs> bukki romb na fii de non mais pas ñi ma gis fii hein moo tax euh, su ma lañ gisee vous savez si on dit wa jàmbaar jooni jooni Gorfit. Non, non du yéen déedéet une mission la première mission de l'armée sénégalaise c'est protéger le citoyen sénégalais protéger le pays protéger les intérêts du pays du peuple sénégalais mais pas croiser les bras et laisser les Français venir prendre notre, nos ressources par le canal d'un guignol qui est là, un manipulateur un incompétent, un criminel, un comploteur. Et vous êtes là. Mais, regardez vos petits frères, vos fils là. Le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré du Burkina. Regardez ce petit qui est là, qui est en train de révolutionner extraordinairement l'armée burkinabé et le peuple burkinabé. Mais regardez Ibrahim, il est là. C'est un capitaine, un capitaine, un gosse de rien du tout. Qui se fait respecter par tout le monde y compris l'Occident. Même les États-Unis d'Amérique font la courbette devant Ibrahima, le capitaine euh, du Burkina, pour lui dire que oui, je, je vous surpris, nous voulons amener, vous apporter une aide pour la sécurité. Il les a renvoyés chier d'or. Allô, oui. Oui. Ça va Ça va, ça va. Et toi naka kooku. waaw ñu ngi ci jàmm. ah non non Sénégal yow la ay boo di jënd kese fan la de woowu moom kaw moo boo Sénégal yow bu ñu ko yaakaaree gars yi def. waaw mais moo tax il faut ñu joxoñ li ñu xamal leen lan mooy seen taxawaay pour ñu xam sénégalais xam nañu lan mooy seen wareef ci réew mi on les a pas payés là les sénégalais ne le payent pas pour que ñu commencé ay wala ay taaxuraan ay taaxuraan non non non non di ndaga non. waaye si loolu moom tu as parfait tu as parfaitement raison quoi ñu man moo moo sonal la population bi bokk seen bokk seen war nañu yeewu léegi nag. ñu taxaw nag xëy na xëy na. loolu yaa tax si Sonko Sonko yaa déjà tout fait la ñuy yee wax leen lépp. des moom ñoom Sénégal ñoom ñoom ñoom seen bopp la ñoo war a jóg jóg. voilà non non on va pas on va pas les laisser on leur paye c'est notre argent ils travaillent pour le peuple c'est le peuple qui est le patron pas Macky ni le régime c'est le peuple qui est patron voilà ils sont tous des employés le peuple en personne devait prendre ses responsabilités le peuple qui devait pas ses responsabilités

un million deux millions de sénégalais, bu ñu Mais même kenn mënu leen téye kenn. ah bien sûr. ah voilà donc mu ngi noonu moom c'est tout c'est tout c'est tout mhm. c'est ça. fii question. Ah voilà ok. Ah, c'est que euh, tu es en train de presser c'est bon c'est de sensibiliser surtout di la eh, c'est bon c'est bon. oui ok c'est ça la mission de l'armée sénégalaise. C'est ça. Oui. Oui. Si vous, avez si vous avez été honoré, c'est grâce au peuple sénégalais, à ce peuple-là, que vous avez abandonné. Que vous avez abandonné depuis le mois de mars. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a dans un pays, il y a une armée qui est là pour assurer la sécurité de ses citoyens sénégalais. Et cette armée a croisé les bras sous prétendant, oui, hiérarchie, euh, chef suprême, il nomme, il dégomme, oui, régime. Non, vous laissez, laissez gens assassiner les citoyens sénégalais. Il y a combien de morts Vous êtes là. Plus grave, on vient kidnapper. À votre sein, on prend un sergent-chef, on l'enlève, on le tue. On prend un adjudant-chef, commandant de brigade, on l'enlève, on l'assassine. On voit aller un ancien militaire, garde rapproché, on l'assassine, on l'assassine. Et tous ces Sénégalais-là, vous êtes toujours là. Il n'y a pas de communiqué, ken pipe ni mot, ken wakouti, ken dafouti. Il n'y en a pas donc, relation entre l'armée et son peuple rapprochement entre le peuple et l'armée rapprochement entre la police la gendarmerie et son peuple non vous pas. c'est de la fumisterie c'est de l'hypocrisie cette armée a abandonné le peuple sénégalais vous avez abandonné vous avez échoué vous êtes complice de tous ces assassinats parce que vous n'avez pas joué votre rôle on vous paye pour protéger ces Sénégalais le jour du jugement dernier vous allez rendre compte di ngeen fay yàlla da di laaj yéen ñëpp tout le mu neex leen mu naxar leen yàlla dina leen laaj yoomal am amul jiital dënn fii di jiital mbagg colonel général Piti nga dee juróom-ñaari mètre perkan boo jullit ñi gas pax nokk la ci biir pax bi bu dee milliards yi ñoo tax ngeen am taxawaay bii vis à ak peuple Sénégal yenn armée yéen lay waxal je m'adresse à vous Et quand je m'adresse à l'armée sénégalaise, je commence par le général des forces armées, le général des chefs d'état-major des forces armées, qui coiffe toutes les forces militaires de ce pays. Il faut rien petite station, vous avez des responsabilités. Avec les sous, euh, euh, euh, ces petits généraux-là, petits tralala, fille, Il faut être un homme. Il faut garder sa dignité. Quand on est homme, on l'accepte. C'est ça. Et vous croyez que le peuple n'a rien vu loolu ngeen yaakaar sénégalais xamuñu la xew xam nañu la xew xam nañ lan mooy seen taxawaay te def leen seen taxawaay mais Macky Sall daf leen di jël ne dem leen bombardé feneen ngeen dem bombardé ko aveuglement frontière ku neex dugg kacapan bu ñëw dund Macky Sall mu ngi dem jëlee ay militants ay Mauritaniens ay naar yëpp di leen dugal di leen jox nationalité sénégalaise ay Bissau yéen ngi toog fi à la sécurité bi où est la valeur de l'armée sénégalaise quand je parle de l'armée sénégalaise je parle de la police la gendarmerie militaire yéen la seen liggéey et on vous êtes payé pour ça c'est ça votre devoir nit ki boo échequé da nga koy assumé. dans ce pays là vous faites que vous que jouer de ce rôle Nous mu nous nga y a trop de justice. vous fermez les yeux parce que oui c'est euh, euh, c'est la constitution quoi c'est le chef de l'État non et gomme, quoi euh, clé des institutions et si ce gars-là est en train d'assassiner le peuple il tue flagrant maintenant Amoul tout quoi dañuy quoi ñoom dañuy jàpp bakkanu sénégalais yi euh, comme comme xaj xaj xaj même le chien on respecte le chien c'est-à-dire le Sénégal la vie du sénégalais n'a plus de valeur on tue quand on veut on enlève on arrête n'importe quoi n'importe quelle heure c'est de l'anarchie la monarchie c'est du bordel et vous êtes là et pourtant vos prédécesseurs là ils n'ont pas eu cette position-là. Les gens, Alfred Diallo, tous ces hommes-là. Si ça commence à péter, ils vont, ils, portent le chaussure. Ils ne fait que le président Tibi parle eh, arrête, le hein. de Et ne pense pas qu'on va te laisser faire ce que tu veux faire là. Il faut arrêter. C'est ça l'armée. C'est ça la République. C'est ça la dignité. C'est ça le peuple. C'est ça l'honneur de l'armée mais si tu as peur oui, parce que su ma ko waxee mu wàccee ma may radier quoi ou bien il euh, euh, y a ceci cela non non non non y a kon yow un yalla. ragaloo yalla. parce que seen yalla, moi Macky Sall il est votre Dieu Et je sais yéen a ngi une seen bureau mais le gars qui parle je vous dis la vérité parce que vous avez échoué vis-à-vis ce qui vous lie avec le peuple qui vous a tout donné. Nous avons vu ici 4 avril, gis fête une C'est fête pourtant bi vous jëndee askan bi dafa le peuple sénégalais manifestation y a ko teg ci suuf pour sargal parce que une fête la fête en fait il y a xam quoi parce que Sénégal mosul am indépendance mais cette dépendance là quoi fête de dépendance bi.

mais Afrique c'est Sénégal et en Afrique c'est pas dans tous les pays hein même en Afrique c'est pas tout dans ça ne se passera pas comme ça le Burkina jóg nañu la Blaise Camporé, vim jóg nañ ko Qui ko kii fa ñëw toog dof Qui ñu tëbal ko keneen ki ñëw toog ñu jeune là votre fils ni ñii seen qui la un fils le petit là ils sont deux. Deux respectés dans le monde entier. Deux. Deux en Afrique. Les plus respectés Les hommes, les hommes de télé les plus respectés dans le monde entier. En Afrique, les plus respectés. Ils sont que deux. Pas plus deux. Assimi Koïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina. C'est les deux là. À part ça, c'est fini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À moi À moi Et vous voulez une euh, euh, euh, relation entre confiance, entre Sénégal, armée Sénégal et population. Li xewni yalla c'est responsabilité parce que si vous avez une responsabilité taxaw vous tax ak taxaw ci ngir ragal li ni injustice mu am Sénégal yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ni yalla xam na ni yéen xam ngeen ni injustice mu ngi am Sénégal Y'en ngi tok te askanu Sénégal xam na ni y'en armée xam ngeen ni injustice mu am Sénégal Y'en a ngi tok parce que lu tax lu intérêt privilégié et ne me dites pas de la loi. Devant la vie humaine, la loi n'a pas de sens. C'est-à-dire, bakkan fort l'eau. te pourtant bakkan problème bi ñuy ni li bakkan injustice quoi donc ngeen bàyyi seen xel ngeen ku ci nekk boo tëddeeg sa nga laaj sa mais lu tax man ñi may fay boo leen ko téye rek seen fit war na dem ci yàlla seen xel war na dem ci yàlla seen xel war na dem ci seen bàmmeel seen fit war na dem ci yàlla yomal xiyaam ku képp ku ci onde te bu ci téye salaire am wallahi wala azim sa xel na na yaraax ci yàlla ak sa bàmmeel ak yomal xiyaam est-ce que xaalis bi may lekk nii man lew na ma dëgg-dëgg ci ma diggante ak yàlla est-ce que li may lekk nii li may jox sama njaboot mu lekk nii lew nañu sénégalais yi ma koy jox est-ce que seen xol sedd na ci bëgg nañ ci est-ce que sénégalais ne ma ñaanal que je man là, est-ce que mu ngi ah. parce que le jour du jugement là de là nous allons tous passer parce que dafa am app bi yonent bi a tëdd un <laughs> lu de temps. il y li des kon yomal am ci bi la de fii ku fi nekk ak sa colonel général di capitaine di commandant di lieutenant homme de troupe ministre député xalif général Touba sur mètre rek ak sa catholique nga sa costume la wala sa sa nga sa veste mais sa pas yoo rek li fi nous serons tous interpellés ça mettez ça dans la tête nous serons tous interpellés ay général de 4 étoiles 3 étoiles colonel tu te prends pour un demi-dieu xoolal juróom mètre perkan tak bi mu gas ci bir ci do dara tous. nga li pour sen devoir ngeen ligge ci ngeen xamne yalla mo ngi len di xol sénégalais yi leen di fay amna ko xamne mu ngi teud ci ñeegu ñax de ci souf lay teud basam mu ngi teudale ak xif sénégal bi lay fay mu ngi teudale ak feebar sénégal bi lay fay mu ngi teudale ak ñak ju metti sénégal bi lay fay mu ngi teudale ak jaxlé pour mu leer lola bu ngeen duggal ko seen bop nee la ñen armée sénégal responsable de ci réew mi kenn ëpp ci maintenant si vous êtes ñi leen manipuler choisir soit vous êtes avec le peuple vous êtes avec le Sénégal soit vous êtes avec Macky Sall vous êtes avec la famille Faisal peuple vous responsabilité mais le jour du jugement là nous allons régler nos comptes Vous koy régler ba mu taxaw kak régler? koy régler fii yàlla moo fi am quel mënul impressionné quel, quel mënu leen fi impressionné kenn kenn on vous paye pour ngeen liggéey point barre ku fi deful sa on vous paye pour pour faites votre boulot si vous ne faites pas votre boulot on sort pour vous dire vous montrer du doigt votre responsabilité c'est une fuite de responsabilité mon cher assumez vos responsabilités si ce pays-là brûle c'est à cause de vous l'armée sénégalaise là. Si les vies des Sénégalais sont épargnées, c'est à c'est à cause de vous. Vous avez la lourde responsabilité. Macky Sall, moi, mon Sénégal. Ni Anna Macky Sall, moi, mon Sénégal, moi, mon Al Réumi. Moi, mon Nini. Macky Sall, bala muy egg fii am na ku ko fi jiitu Senghor ba dof dof la dañ ko mettre les points sur les i mu dem ba mu pare mu dem ci Abdou Diouf ñëw mu bëgg dof dof ñu mettre ko les points sur les i Dasosa mu ne dem Ablaye Wade ñëw dof dof lu aussi tamit on a mis les points sur les i Macky Sall bu fi dañ ko war a mettre les points sur les i ay na dokk bandu c'est de faux problèmes loolu mooy dëgg fii dërëm dërëm boo fi lekk rek di ko laayoo attention de dërëm boo fi lekk di ko layoo yomal xiyaam ak sénégalais waaye di nga ko layoot dërëm boobu de Dieu ne pardonnera pas du balde, il a été clair Dieu a été clair amul bal. foofu la ñuy tëjee suñu waxtaan quoi di leen sant di leen gërëm merci.